asalaamaaleykum mbokk yi teel a talaata ñaar fukki fan ak juróom ci dul xijja muy weeru tabaski di fukkeelu weer ak ñaar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa ñaari fan ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ñaar fukki fan ak juróom bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la konte ca talaata ji rafet na li ci teel a wàccandiku moom talaata mooy ku ca watu wala ku ca dalo wala ku ca ñaw ñaanu bis yow yàlla sa yërmande laa yaakaar ma bàyyi ak sama bopp lu toll ne xefe xippi yàlla na nga yéwénal sama mbir yépp amul benn buur bu dul yow allahuma arju fala takilni ila nafsi tarfata ayna wa aslix li sha'ni kullah laa ilaha illa ant allahuma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayna wa aslix li sha'ni kullah laa ilaha illa ant xadiisu bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne woote na ci ak réer am na bàkkaar bu toll ne kem ñam woo te du wàññi dara ci seen bàkkaar xadis bi muslim nettal na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa man dalaala kaana alayhi min al ismi mislu aathaami man tabica min aathaamihim shay'a axrajahu muslim